Euh, Ngoné nduur ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay maa ngi leen di fay di leen leen gërëm di leen sant di nuyu seen auditeurs yi. tey jii euh, ñu tabaat la ci bopp euh, nga doon PCA euh, bu SODAV présidente conseil d'administration mu doon sa ñaareelu mandat bi nga xam ne yaa ngi ko fas yéene jëmal tey jii déjà nan nga jàngate le fait que ñu tabaat la ci. waaw le fait que ñu tabaat ma mooy comme li ma sànq wax si nasaraan rek sama vraiment yëg-yëg bu xam bu fort laa ci am ndax euh, ndaxte xam nga boo nekkee si sa ay nawle gënoo leen gënoo leen ëpp gënoo leen ëpp xam-xam mm-hmm. ngeen liggéeyandoo ñu xam ñu dem ba ne nekk ne sa liggéey bi de neex nañu ba yow mi la ñu bëgg nga continuer nga nga jiite mm-hmm. euh, mu nekk à l'unanimité loolu dafa nekk lu rëy Mm-hmm. parce que ku ci nekk tamit mérité nga place bi ndaxte fekk nan la ci artiste bu mag nga ay affaire d'autant plus que conseil d'administration bi li ñi ko composé ay nit yu am am maanaa lañu ci mm-hmm. ci ci wàllu culture mm-hmm. donc euh, ma profité ci occasion bi remercier leen Euh, bu baree bari bari bari aussi euh, élection bi sa s'est très très bien passé parce que benn candidature euh, rek la mu déposé woon mooy mooy pour man rek maa déposé candidature parce que ñëpp fa dëgg yàlla même bi kii bi passé assemblée bi passé ñu bari woon nañ ma ne ma que ni ñu te bu ñu sañoon yow déposé yaay toog donc donc benn candidature rek la fa directeur bi jot ko mu nekk sama kii ma lu daw yaram ci man xam ne ne que pour man sas la aussi mhm. sas la boo xam ne ne que ne maa ngi ñaan yàlla suñu borom jox ma kàttan bu ma ko mën a diriger et que ñaan yàlla ñu ñu rek kon mën daan def delloo buur ja bayu bayu ga def ko ba nga xam na ne que ne ñëpp dinañ kontaanaat rek mu am assemblée générale euh, bu ko Euh, tey jii ñu mën a jàpp ne ñaari pàcc lañ ko def euh, ñu bëggoon a xam lan moo yeesaat ci euh, lii di structure bi. waaw assemblée générale bi ñu def le vingt quatre juin bi passé. Mhm. dafa nekk assemblée générale bu am ñaari parti mm-hmm. benn première partie bi moom mooy assemblée générale ordinaire bi nga xam ne ni que ne moom lañ doon jàng di lire bilan bi nga xam ne ni que ne moom lañu def liggéey bi ñu liggéey ci deux mille vingt bi. Mm-hmm. directeur bi wane ko moom wane ci deux mille vingt bi man tamit ma jël def rétrospective. Mm-hmm. bu xam ne ni que ne euh, dafay reprendre ak li ñu def yëpp ci ñeenti at yi nga xam ne tok nañ fi mu euh, société mooy deux mille dix sept deux et deux mille vingt parce que OSDAF si jëm boppam sax amagul juróomi at ñëpp euh, approbé rafetlu liggéey bi liggéey bu rafet bi nga xam ne ni que ne deuxième partie bi moo doon euh, élection bi parce que euh, à l'issue de trois ans de mandat il faut que un tiers bi ñu soppi leen mm-hmm. donc comme trente moo a moo war a intégré ñu dañuy wàññi douze jël douze mm-hmm. donc douze yooyu aussi loolu la doon def si présélection ñu mu nekk aussi élection bu leer boo xam ne ni ne xumboon na trop amoon na ay candidature yu bari mhm. donc mu am douze personnes yu bees yoo xam ne dugg nu benn place daal moo ci nekk place bi nga xam ne ni que ne occupé guñ ko parce que dafa am euh, problème ci vote bi ndaxte ñaari du problème sax parce que mhm. ñaari ñaari candidat yëpp ñi doon postuler woon ñoom ñaar ñëpp ñoo yem ay point mhm. léegi ñun suñu texte dafa nekk ne ki nga xam ne ni ne moom moo gën a mag moo war a siéger mais ki dafa déposer recours donc loolu nag comme de recours la donc euh, à l'élection du président du conseil d'administration bu ñu installé conseil d'administration bi dossier bi directeur bi daf ñu koy jox ñu traité ko pour xool kan ñoom ñaar mooy finalement ñoo toog ci siéger ci conseil d'administration képp koo xam ne nekk nga ci SODAV rek bokk nga ci am nga droit nga nga participer si euh, assemblée générale képp mhm. koo xam ne nekk ne bokk nga SODAV nga yore sa carte wala nga yore sa AD kii de carte membre ex-BCEAO boo xam ne jëlu ko sa carte parce que dañ ko xaw a yombalal sax ñi xam ne jotuñu woon jotu jëli seen carte même bu ñu yoree seen kii d'adhésion duñu ñëw dugg ci salle bi euh, ku bokkul SODAV nag moom euh, inscrire amoo carte amoo dara loolu moom mënoo siège boo nekkee artiste mënoo ñëw fekkee tey jii euh, mu am yeneen entité ñi xam ne dañuy yëngu ci wàllum aada aada cosaan wax ne euh, tey ji SODAV assemblée générale gi mu euh, amal loon amul solo ndax agrément am jeex na bu yàgg li ni mel loon ci mën a leeral. waaw li ma ci leeral rek mooy li ma wax si nasaran SODAV euh, tenir na assemblée générale bi jeudi bi passé 24 juin SODAV élire na ay douze personnes yoo xam ne remplacé na leen ci conseil d'administration mhm. démbit ñu def élection président conseil d'administration Mhm. loolu moom mooy wax ne société bi mu ngi dund mi ngi dox donc société bu dundul boo xam ne existé wul mënu ko def loolu mooy sama tontu ci loolu. ñu dem euh, ci euh, li nga xam ne moom mooy euh, bilan bi tey wax nga ko amoon ngeen mandat bi nga xam ne jox nañ leen ko ngeen liggéey ci ba mu waral assemblée bi ñu daal di leen tabaat pour ngeen wéyal liggéey bi mënoon nañoo xam ci xayma lan ngeen jot a def. ba ngeen toogee léegi. waaw donc am nga bilan wu ren bi sax bu bu daaw mhm. bu deux mille vingt bi Euh, bilan bu bu neex a défendre la parce que mën nañ ne sax moom mooy fi bilan bi gën a bi dàq ci sunu bilan yi ñu def bi ñu toogee ba léegi ndaxte euh, charge yi wàññeeku na de plus de trente pour cent Euh, perception yi moom dafa wàññeeku parce que pandémie boobu lépp a tëjoon te bu amul activité SODAV du mën a percevoir. Mm-hmm. donc euh, aussi euh, répartition yi yokku na bu baax a baax a baax réparti nañu quatre cent soixante et quelques million mm-hmm. jox ko artistes yi fonds social bi aussi def na investissement yi aussi def nañ ko ba li ci gën a neex sax moom mooy que ne frais de gestion. yi nga xam ne ne que ne dërëm jëlee ñu ko ci xaalisu artistes yi nga xam ne ne que ne percevoir nañ ko donc loolu li bu xarañ lu ñu def ba nga xam ne ni que ne dafa amoon koppar ci sunu kafa. ba mm-hmm. pare a subvention bi nga xam ne ni que ne aussi état bi dañu ko jox par par weer parce que xam nga état normalement daf ñu war a un milliard par weer. Mm-hmm. waaye nag euh, jox un milliard yi moom jot depuis biñ toogee ba aussi am na solo surtout si atu pandémie bi nga xam ne ni que ne kenn liggéeyul euh, xaw nañu ñu ñu mën a ñu mën a ci génn ba nga xam ne ni que sax même yeneen sociétés yi nga xam ne ni que ñi ngi nekk ci àdduna bi dañ nekk ni ñun la ñu def mu mën ci génn donc daal loolu bilan bu rafet la hmm. te ci biir keroog aussi def nañu ba def rétrospective hmm. bu xam ne ni que ne wane nañu aussi ñeenti at yi ñu fi toog yëpp mooy 2017 2018 2019 ak 2020 hmm. lan lañu liggéey lan lañu liggéey lan lañu liggéey ba nga xam ne ni que vraiment assemblée bu ñu fa toogoon ñëpp kontaan tàccu li ñu li ñuy ko bu nga xam ne ni que ni euh, kii kii bi rafet na vraiment retour yi ñu ci am daal retour yu vraiment yu satisfaisant la venant mm-hmm. des des des acteurs qui étaient présents ak même ñi nga xam ne ni ñu ko doon suivre te te nekkuñu woon ci biir salle liggéey boo gis euh, dina am jafe-jafe ñu bëggoon a xam yéen SODAV maanaam ci seen wàllum liggéey nan ngeen di liggéey ndax jafe-jafe yi ngeen di jànkonteel tamit bëri na jafe-jafe yi tout à dafa dafa bari na parce que bi ci jiitu sax moom mooy euh, jafe-jafe wu le fait que copie privée boobu nekkul en en place parce que copie privée boo déggee ni que ni ñëpp sawar ci parce que copie privée moom mooy droit bi ëpp xaalis ci droit ci àdduna bi boo jëlee def boo defee sondage droit boobu moo ci économiquement moo ci ëpp doole donc ñun dañ bu baax surtout ñi nga xam ne ni que ni am solo pour ñu mën a dugg ci suñu kii beneen droit yi am na droit reprographie pour littéraire yi am na droit aussi le droit de suite moom mooy droit yi nga xam ne ni que ne artistes yi nekk ci art visuel ñoom ñoo ko moom hmm. donc yooyu bokk ay jafe-jafe yoo xam ne ni que am nañ ko naam nguur gi ñu ngi ciy liggéey mais liggéey bi dafa xaw a tuuti parce que droit euh, copie privée bi moom dafa vraiment dafa yéex ndaxte lenn lu tuuti rek moo ci des mooy li nga xam ne ni que ne dina euh, arrêté bu nga xam ne ni que ne ministère de finances a ministère de la culture dinañ ko dañ ko war a def pour mën a euh, autoriser droit douane mu mën a prélever kii euh, redevance euh, boobu bu bu kii nu mu appareil yooyu ñëwee ci mm-hmm. ci ci territoire sénégalais mm-hmm. donc daal loolu daal nekk na difficulté yi nga xam ne ni que ne am nañu ko parce que bu ñu ko amoon bu ñu amoon loolu di nga gis que ne euh, ndëgum sodaaf am droit d'auteur kese la def ni imaginez vous bu ñu amoon encore kii nu mu tudd ci privée mm-hmm. loolu moom mooy que ne dafay ça ça va être extraordinaire donc loolu dina ci jéego conseil bu bees bi ñëw dina ci def ay jéego yu bari pour vraiment pousser def lobby ko def euh, nu mu tuddati nu mu gën a gaawee yeneen contrainte yi également yi am moom mooy que ne fi ñu nekk di fa liggéey mooy euh, siège bi dafa nekk ci bâtiment bu xaw a euh, dangereux sax ndaxte amoon na nañu mission waa protection civile yi nga xam ne ñëwoon nañ fa mm-hmm. pour pour saytu ko nekk ne fii moom yoboo ngeen génn fii war ngeen defaraat ko daal defar boo xam ne nekk ne dafa kii donc projet wu construction wu boobu aussi ci ci projet yu urgent la am ak yeneen projet def jënd ay logiciel <coughs> pour mën a a kii euh, nu mu tëddee liggéey gi gën a mën xariñ mhm. aussi euh, ñu xaar contrat wu euh, bu SACEM bi nga xam ne d'ici quelques jours dinañ ko jot si soobee suñu borom et que bi nga xam ne ni lu am solo la moom mooy que ni contrat wu canal bi ni nga xam ne ni xayma nañ ko ba jot ñoom ñu yónnee ñu xaalis parce que canal bu njëkk ba payooram daka daan yónnee SACEM ci contrat wu SACEM lañ ko dëxëñoon mhm. ci BSDA donc ñu doon fay entre trois mille ak cinq mille euros par an ñun nag na fexe société de gestion africaine yi ne ñoom loolu bëggatun ko il faut que canal comme dafa nekk ci dëkku africain yi di fa di fa exploité il faut que mu am contrat direct loolu ñun ñu bokk ci société yi nga xam ne ko doon xeex bi ñu xeexee aussi ñu am contrat léegi directement ak canal boo xam ne ni que ni ci œuvre yi nga xam ne ni que séné sénégalais yi ñuy exploité loolu euh, exploité fii ci Sénégal dañ ciy fay donc ren jii nag ñu signé contrat boo xam ne ni que ne dinañ jot lu mu lu ci tollu ci euh, cent et quelques mille euh, euros mmh. par et chaque année dafay gën a yokk quoi donc gis nga différence bi entre cinq mille ak cent et quelques mille euros par an. Mm -hmm. c'est c'est le jour et la nuit. Okay. donc donc donc loolu la quoi donc yooyu daal moom moo nekk nekk mbir yoo xam ne ni que ne euh, mbir yu mbir yu bees la yu ñëw yoo xam ne ni que SODAV ma enchaîner def ci perspective yi mm-hmm. euh, SODAV aussi dafa am ay projet yu am solo am na sax dama ko fàtte wax ci nasaraan am nañu projet yu même mettre salon boo xam ne ne que ne salon du droit d'auteur de la propriété intellectuelle droit d'auteur ay affaire pour que nit yi di a daje chaque année bu dee bu ñaar bu benn bu chaque année it muy nekk chaque euh, ñaari at rencontre pour que nit yi gën a a ñu a mën a euh, xam euh, gestion collective ak mbiru propriété intellectuelle aussi am nañu projet yi nga xam ne ni c'est des projets aussi sociaux pour que vraiment que ñu a fexe ni cent mille logements yeeg état bi en place nu ci Euh, ki wu SODAV yi mën a ci jëriñoo euh, ayant droit wu SODAV bi ak yooyu yëpp si ay jéego yo nga xam ngi si si sunu sunu sunu kanam yoo xam ne ni que ne nu mu gën a gaawee solo aujourd'hui SODAV mu def ko société bu gestion collective euh, am na ni que ne mën nañ na la amul benn société de gestion collective au monde bu ko def tey ay répartition département lépp année année deux yëpp dem ci kaw répartition régulariser yi nga xam ne ni que ne mooy boru répartition yi BSDA yi ñu fi fekkoon de pratiquement presque cinq cent millions hmm. tey jii SODAV li dul barum euh, euh, nu mu euh, du bor sax parce que normalement ci société de gestion collective boo collecté xaalis tey hmm. ci il faut nga xaar dix huit mois pour nga mën ko répartir hmm. xam nga ku répartir ba répartir deux mille vingt yëpp mu desal deux mille vingt et un c'est-à-dire que loolu prouesse la boo xam ne que ni def na ko euh, bariwul gëw ma ne sax am na ñu ko def ci ci ci ci ci ci dans le monde donc loolu la quoi donc c'est daal au fait pour man li ci lu dafa am dafa nekk dafa am jàngat boo xam ne que ni c'est même au-delà de la gestion collective boo xam ne man dama ko ci def man personnellement SODAV SODAV dafa war a nekk benn modèle modèle de gestion boo xam ne que ni nit ci mënul ci jàngat. Mhm. parce que de transparence et de bonne gouvernance gaw ma ne que ne am na euh, ay euh, sociétés yoo xam ne dinañ jël seen bilan teg ko ci mbedd mi mhm. dugal ko ci internet mhm. ne leen que ne ku mu neex nga saytu nga xool taxaw ci ci assemblée boo xam ne ne que dafay am plus de cinq cent personnes nga saytu ne leen boo leen ma question ci bi ma def ni ndax kii na mu am commissaire au boo xam ne ne que ne euh, dafay ñëw <clears throat> pour saytu au delà de ça la mission même d'évaluation de li nga xam ne ne que ne bu état bi defoon na def na liggéeyam xam naa ñoom seeni Euh, résultat dinañ ko jox seen rapport dinañ ko jox état bi tout et que ce qui est bien également c'est que la commission de contrôle euh, bi nga xam ne ni ne moom moo nekk ci biir euh, loi bi commission de contrôle bi membre yëpp désigné nañ leen ba ñu def seen première réunion keroog ministère keroog ci biir assemblée générale bi rek secrétaire général bi mi ngi koy rappelé ci discours mm-hmm. donc yooyu yëpp di wane ne que ne modèle de transparence bi nga xam ne ni SODAV moo koy mi koy mi koy mi koy wane cest à pour man dafa nit yi dañ ci war a am jàngat parce que société yu bari yoo xam ne surtout les sociétés publiques mhm. suñ doon mën a jàngat ci ci ci ci Sodav nu muy doxee mi nga xam ne ci modèle u transparence dina dina dina am solo parce que transparence dafa jafe de ci jamono ji ñu nekk transparence def ne def dara jël dara ne man lii laa ko teg naa ko mbedd mi ku mu neex sax yow mii mën nga dugg tey jii ci surtout Sodav nga télécharger sunu euh, rapport nga lire ko d'accord <laughs> et juste une question balaa ma laa bàyyi fu audit bi mhm. toll bi njiitu réew mi réclamé woon non c'est-à-dire euh, euh, njiitu réew mi réclamé wul audit njiitu réew mi dafa wax pour ñu def évaluation d'accord évaluation dafa dafa def euh, kii nu mu tëddi mission d'évaluation institutionnelle et financière xam nga entre une mission et un audit mhm. ja c'est c'est bokkul mission d'évaluation cette mission d'évaluation moom laa doon wax tout à l'heure mm-hmm. euh, euh, nu mu tuddati euh, ils étaient à la SODAV pendant des semaines et des semaines ils ont déjà terminé leur travail maintenant ñoom ñoo yore seen i rapport bu nu jox ki leen ko sant xam nga dafa am ku leen ko sant mm. muy muy muy le président de la république président de la république bi ko bi leen ko sant ñoom dinañ jël seen rapport remettre ko à la la la kii nu mu tuddati au président. vous voyez mm. donc te te beneen euh, nu mu tuddati euh, commission euh, permanente de contrôle bi nga xam ne dafa nekk loolu ñun ñoo ko saytu woon ñun artistes yi moi je faisais partie des gens moment bi ñuy bind loi bi parce que moi je suis co de la loi bokk dama bokk ci ñi bind ci loi 2008 sur le droit d'auteur et les droits mm. moi je faisais partie des gens yi nga xam ne ni que ni dañu insister à ce que ñu bind ci texte de loi yi nekk nekk société de gestion collective nekk il faut que ñu teg benn corps de contrôle boo xam ne état bi moom moo koy kii pour ñu am bët ci ci ci gestion bi. Mm-hmm. Mm-hmm. donc loolu c'est des choses naturelles du nit lu mu xeex amul nit boo xam ne loolu ñun ñi bind taxi ñooñu ñoo ko xeex teg ko fi. comprendre lu mm-hmm. donc loolu nag état bi moom ñun mënuñu nekk juge et partie c'est pas à nous de mettre la la la commission de contrôle <laughs> du ñun du ñu teg suñu bopp ba pare saytu suñu bopp. dañuy saytu donc loolu moo xawoon a jël temps mais maintenant tout est fini. am na membre xam nañ leen désigné nañ leen commencé na def seen i réunion commencé def nañ seen kii te SODAV au delà de ça tegal nañ commission d' évaluation donc mi ngi noonu rek Sénégal jëm kanam ñun daal xamal lan moo intéressé. Uh-huh. continuer le travail la mission bi nga xam ne ni que ne moom la ñu ayant droit wu soda bi sant d'accord tënku ci def lu leer liggéey wane parce que xam nga lan moo am am am am solo si àdduna. Mm. buñ la dénkee da rendre compte dangay ngay rendre compte rendre compte moom moo am solo parce que suñu la dénkee rendre compte foofu la jiixi jaaxa ki mais chaque année chaque dernier jeudi du mois de juin. Mm-hmm. SODAV dafay dajale i nga xam ne ñoo moom société bi mooy yooyu ñooñu ñooy ayants droit yi ñooñu ñooy suñu ay patron yi. ñooñu ñu nekkoon ci biir salle bi ñooñu ñooy suñu ay patron ñun ñun ñu nekk patron conseil d'administration nekk patron direction bi noonu la demee donc ñooñu bu ñu ñëwee toog ñu ñu ñu wane liggéey ne ni ni lii de leenu su liggéey xam nga tey ji ku war a rendre compte doo ñëw di caax ca parce que xam nga ne que ne boo fa defal lu fa naka doof naka saxla boo demee ca assemblée générale bi di nga am beaucoup de problèmes mm-hmm. donc chaque année rek SODAV dina def ay jéego yu yu yu positif mm-hmm. ay jéego yu am solo maintenant on est en démocratie il faut qu'on laisse les gens suñu amee lu ñuy wax ñu wax ko lu munu am wunu d'accordul mm-hmm. ñu ne pas dire que tout le monde n'est pas d'accord c'est ça ça ne pas dire tout le monde n'est pas d'accord su fekkee ne am na ñoo xam ne nañ d'accord uñu a pas de problème am nañu d'accord ña d'accord ñi ngay continuer di liggéey ak ak euh, l'essentiel ñun suñu cër moom mooy que nanu def de telle sorte que euh, ña d'accord sax au fil du temps dinañ leen convaincre ba nu d'accord man de loolu mooy sama cër waaw man moom loolu ci loolu lay dox doxuma ci tontu doxuma ci parce que moi c'est le travail qui m'intéresse et les résultat loolu mooy tontu. Mm. man c'est ça qui m'intéresse xulóowuma xeexuma defuma len aw ma aw ma jot boobu. d'accord ah, ah, aw ma jot boobu. ñu lay jaajëfal bu baax a baax. nga jërëjëf merci. merci beaucoup. merci à vous.